mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi jël nuyoo bu tedd. nee na ñu ngi jël nuyoo bu tedd. gannaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gannaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jël ziyaara bu tedd. nee na jël ziyaara bu tedd. jox ko. jox ko. sunu xalifa yi. sunu xalifa yi. ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ni. ñooy kuutaayu. ñooy kuutaayu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci biir réew mi. ci biir réew mi. ci ñun ñi ñëpp. ci ñun ñi ñëpp. kenn ku ne. kenn ku ci ne. jugee ci ak kër. nee na jugee ci ak kër. kon tey jotaay bii. kon tey jotaay bii. damay mën a wax ni Sénégal a ngi ci biir Sall. dafay mën a wax ni Sénégal a ngi ci biir Sall. kon kon. maa ngi leen di siyaare monsieur l'excellence ak monsieur l'ambassadeur. nee na l'excellence monsieur l'ambassadeur mu ngi lay ziyaara. ziyaara bu tedd. nee na ci ziyaara bu tedd. di wax ni sunu tànk yi nee di wax ni sunu tànk yi li ko indi. nee na li ko indi. mooy li sunu borom borom wax ci alxuraan. mooy li sunu borom wax ci alxuraan. wa'tasimu bi hablillahi jami'an. wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. ak innamal mu'minuna ixwatun. ak kon tey suñu jéego tey yii. nee na suñuy jéego tey yii. li ñu ko lëkkale. nee na li ko lëkkale. bu ñëpp. ñun ñëpp. ba kenn ku ne. ba kenn ku ne. xëyee ci ab dëkk. xëyee ci ab dëkk. añoo. añoo. yendu tey Dakar. yendu tey Dakar. ngir wan ni. ngir wan ni. suñu tànk yi tey. suñu tànk yi tey. mënoon a taxaw. mënoon a taxaw. te suufu Palestine. te suufu Palestine. dañ fay taxaw tey. dañ taxaw tey. ngir lan. ngir lan. ngir ànd ak ñoom. ngir ànd ak ñoom. ci tiis wi. ci tiis wi. ak métti bi. a métti ak moo tax. moo tax. ñu ñëw fii. fii. ci kër gii nga xam ne. ci kër gii nga xam ni. mooy këru Palestine. mooy këru Palestine. ci réew mi ci réew mi. ndax ñëpp xam na ni. ñëpp xam na ni. bu nee ambassadeur. bu nee ambassadeur. résidence ba. résidence ba ak yëpp. ak yëpp day méngale. day méngale réew moom jóge. réew moomu jóge kon tey jàpp nañ ne. tey jàpp nañ ne mel na ni. mel na ni ñu ngi biir Palestine. ñu ngi biir Palestine kon. kon li mu mën a def li nu mën a def man a ànd ak yow tiis woowu mën a ànd ak yow tiis woowu ànd ak méttit woowu ànd ak méttit woowu mën a xam ne mën a xam ni nit ñi nit ñi dañu guerre dañ koy tuddee guerre dañu koy tuddee waaye du guerre waaye du guerre entre entre am réew am réew muy not am réew muy not am réew di bombarder population di bombarder population adduna bépp di seetaan adduna bépp di seetaan jullit yëpp di seetaan jullit yëpp di seetaan loolu mooy li fi am loolu mooy li fi loolu loolu war a taxaw dafa war taxaw ndax li tax mu taxaw li tax mu taxaw ñun ñëpp ku ne Afrique. ci continent bi di Afrique. ak li nga xam ne mooy monde bi. ak li nga xam ne mooy monde bi. am réew. bu fa am njiitum réew nekkee sax. fa njiitum réew nekkee. di am lu muy doxal. am lu muy doxal ci réew ma. ca réew ma da nga gis. da nga gis réewu européen yi. réewu wala américain ci kaw réew mi ñëw dal ci réew mi kon lan moo tax. lan moo tax 71 ans wala 73 ans. 71 ans wala 73 ans. ay nit. ay nit di not mennum réew. di not mennum réew. adduna bépp di seetaan adduna bépp di seetaan ñuy bombardé nit ñi. ñuy bombardé nit ñi adduna bépp di te mu bokk ci ñi nga xam armée mooy armée bi gën a ci àdduna gën a rëy ci àdduna kon loolu kon loolu dafa war a jeex a ndax li ko war a jeexal li ko war a jeexal mooy nit ñi nit ñi ñi ngi bàyyi xel ci lu bari ñi ngi bàyyi xel ci lu bari ndax tey ni ma ko waxee ni ma ko waxee réew yii réew yii bis bu set bis bu set nga gis nga gis européens yi européens yi ak américains yi ak américains yi ànd ànd attaqué am système bi ngir ci système bi ngir ci système bi muy doxee. wala mu dal ci meneen réew. wala mu dal ci meneen réew ñu attaqué Israël nag. Israël waxtu wu ne. waxtu nit ñi di ko seetaan waaye waxtu ne ñun ñii. ak gis-gis yi nit ñi am. loolu dana jeex balaa yàgg. kon ñun li ñu indi woon ay jullit lan. di am lu ñu yëg ci suñu biir. xam ne. xam ni lu ñu a am. lu ñu mën a am diine l'islam moo ñu diine l'islam moo ñu ko xam ne lu ñu a am. xam ne lu ñu mën a am njàngalem yonent bi. njàngalem yonent bi lu nu mën a am. xam ne lu nu mën a am. al muslim. al muslim akul muslim akul muslim. kon tey kon tey loolu moo ñu indi woon. loolu moo ñu indi woon tey ñu wan ne. ñu wan ni tiis wi tiis wi ak naqar wi ak naqar wi. convergence taxawu convergence taxawu doonay mag ñi. ñu ngi ànd ak yow ñu ngi ànd ak yow. ndax kat ndax sun maam yi. sun maam yi li ñu doon doxal. li ñu doon doxal diine rek la doon doxal diine rek la doon doxal. ba pare ba pare ànd ak. ànd ak solidarité ak solidarité ak nekkoo benn. ak nekkoo benn kon excellence. l' excellence. ñun ñi fi daje. ñun ñi fi daje ñu ngi ànd yow tiis wi. ñu ngi ànd yow tiis ñu ngi ànd yow naqar wi. ñu ngi ànd yow naqar ñu ngi ànd yow métti wi. ñu ngi ànd yow métti image bii nga ma wan léegi. nee na image bii nga ko wan sama yaram da doon daw. yaram dafa doon daw ndax di bombardé. di bombardé ñoo xam ni ay commerçant la ay commerçant la nekk ci biir seen la ñu jaay. nekk ci biir la ñu jaay ñu fekk di leen rey di leen rey ci dëgg-dëgg. ci dëgg-dëgg ku yaram dawul. ku yaram dawul suñu yaram dawul suñu yaram dawul ñun daal ñun daal excellence. l' excellence ñu ngi ànd ak yow naqari. ñu ngi ànd ak yow naqari ñu ngi ànd ak yow tiis. ñu ngi ànd ak yow tiis foofu rek lan mën a yow foofu lan mën a yow waaye nag waaye nag jullit moom jullit moom amul lu dul amul lu dul ngànnaayam bi gën a rëy ngànnaayam bi gën a rëy mooy ñaan mooy ñaan kilifa yii kilifa yii jotaay bii ñu toog jotaay bii ñu toog sëriñ wax li mu wax sëriñ wax li mu wax Serigne Cheikh wax li mu wax Serigne Cheikh borom saafara suñu borom borom lépp lu mu bëgg a saafara lépp a ko saafara dana ko saafara lii daal lan ne woon lii daal lan ne woon ci gàttal ci ko tënk nañ ko tënk di ànd ak yow métti di ànd bi ci turu ci turu conversation taxaw conversation taxaw doonay mag ñi wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatulah